xale yaa ngi noonu dugg si ñu sàkku ci mbooloo mi ñëpp ñu jóg taxaw sargal xale yi nga xam ne ñoo wattu alquran su ko defee ñoom ñooy ahlul quran yi wa xaasatu yàlla mu barkeel leen ñi ñu mat a tatagal lañ ñu mat a sargal lañ ndax sittiina xisban ñu def ko seeni dënn loolu mat naa sargal bu baax te alquranul karim waxuma la kaamil bépp waaye benn aaya rek bu ko ci nit mottalee rek jaadu nañu sargal ko bu baax a baax ndax ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw yi nag magi ëllëg kon ñoom yiw jiitu na seen i dënn yàlla na sunu borom def leen ñu nekk mag ñii ñoo jar a sargal ñii ñoo jar a tatagal bu baax a baax yàlla na yàlla barkeel leen bu baax a baax yàlla na yàlla barkeel seenu dund yàlla na yàlla barkeel seenu dund bu baax a baax ñu jariñ seen i waajur bu baax jariñ gox ba nga xam ne fa lañ bàyyi koo ngi sàkkuwaat ñëpp ñu eggaat suuf ñu tatagal leen Güller xale yi wattu alquranul karim te yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxoon ne ne iqra'u alqur'ana fa innahu ya'ti yawma alqiyamati shafi'an li ashaabih jàng leen alquran ndax alquran ne bu ëllëgee dana dikk di ràmm ay ñoñam kon alquran rek mooy dëgg alquran rek mooy li nga xam ne moom mooy sax kon lu mata bàyyi yàlla na sunu borom subhanahu wa taala def ñu ñu bokk ci ahlul quran kon xam naa comme niñ ko waxee woon léegi rek xale yi ngeen gis suñu ginnaaw ñu yor ay kaamil ñooy xale yi nga xam ne ñoo doon dugg si léegi te ñoo wattu téere yàlla bi wattu téere yàlla bi nag lu rëyee rëyee rëy fa yàlla la ndax alquran xawlan thaqilan wax lu ju diis la moo tax yàlla waxoon ne law anzalna hada alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu xaashi'an mutasaddi'an min xashyatillah wax ne alqur'an ji suñ ko wàcce woon ci aw doj aw montagne lu mu dëgër dëgër montagne moom dafay mujj xar ngir diisaayu alqur'anul karim moo tax sunu borom doon wax ne inna sa nulqiya alayka xawlan thaqila ñun de danañ la sax wax joo xam ne wax ju diis la kon loolu ko def ci ab wax dëgg yàlla lu lu rëyee rëy la lu màgg màgg la xale yi wax léegi ne suñ bëggee saafarawu ci yow la ñuy ñëw mooy alquran fiihi shifaun linnaas alquran mooy saafara nit ñi kon xam naa dañuy woo ci dañuy tànn juróomi xale rek woo ci kenn ñi woo sëñ naa Si mu bokk ci nga xam ne wattu nañu alquran di doom ci sëriñ Ibrahima Si ak soxna maa Hawa Si dëkk tuubaa Sam su ko defee dañuy jox suñu mbokk suñu xarit sëriñ daara di sëriñ Amir Gaye su ko defee mu laajal ñu ko ay laaj su ko defee ñu barkeelu ci wattu googu nga xam ne xale yi wattu nañ ko kon sëriñ Amir Gaye bismillah tafaddal sëriñ jërëjëf kàddu yi rafet na ni ko waxee léegi rek euh, xale yi wattu nañ téere borom bi subhanahu wa taala di lu rëy dilu lu màgg di lu foor fa suñu borom subhanahu wa taala comme ni nga ko waxe sëriñ Ousmane ndax borom bi subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ni inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun kon ndekete wattu téere borom bi subhanahu wa taala sàmm gi mi ngi tàmbalee rek ci mokkal alquranul karim kon loola bokk na ci li nga xam ni mooy sàmm alxuraan kon lu rëy di lu màgg di lu foor kon ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax di ci ndokkeel suñu bopp di ci ndokkeel waajur yi di ci ndokkeel way teew yépp ndax lu màgg la lu rëy la waaye lu foor la ndokkeel nag suñ koy def dañ naan mbégte lañuy ndokkeel te dara gënt rëy ci kaw suuf dara gënta ci kaw suuf dara gënta nekk kontante ci kaw suuf wattut yërëb borom bi subhaanahu wa kon mbokk yi ñu leen ci ndokkeel bu baax a baax waaye mokkal gi jàng gi mooy sababu texe sëriñ Tuubaa nee na xale soo ko yóbboo daara mu jàng bismillahi rahmaani rahim yàlla goreel na xale bi ci safara waaye goreel na ay waajuram mbokk yi loola ana lan moo ko gën a nekk mbégte ci kaw suuf wattu tiirab yàlla bi mokkal ko bokk ci nga xam ni dañoo mucc ci safara bokk ci ñi nga xam ni yàlla su ëllëgee da leen tàbbil aljanna mbokk yi loola lan moo ko gën a rëy ci kaw suuf kon lu réy la lu foor la xale yi lañuy wax dañ naan xale yi wattu nañ waaye jàpp naa ni dootuñu ay xale ndax lu tal ne alquranul karim di waxi borom bi subhanahu wa di lu rëy di lu foor koo xam ni danga ko dugal sab dënn jàpp naa ne nekkatoo ab xale magum jëmm nga léegi sëriñ tubaa daa nañ wax ni su masaana am ñaari nit yoo xam ne ñoo bokk tur kenn ki wattu alquranul karim kenn ki wattuwu ko ñun ki ñuy jàppee ku mag rek mooy ki ëppale ay at waaye moom de daw ko gisee noonu ki nga xam ne moo wattu alquranul karim kooku lay jàppee am mag kon dekete wattu alquran mbokk yi ñun suñ jëlee nit ki def ko ab xale tamit fa yàlla moom dootul ab xale magum jëmm la kon di leen ci ndokkeel bu baax a baax xam naa ñu bañ a guddal rek suñu donga bu njëkk di wuyoo ci sëriñ naa Si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 بل هم عن ذكر ربهم معرضون بسم الله سرين سيخنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم صيحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا فرقان وضياء وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا baax na jërëjëf sëriñ Seexuna rafet na lool sàmm nga li nga xam ne moom la sunu boroom digle ñu sàmm wante moom ci àttee tajwiid kon ñu jàll ci suñu ñaareelu xale sëriñ Jugo Jàng sëriñ Jugo Jaañ sëriñ Jugo Jaañ jërëjëf euh, xale boobu nga xam ne moo tari léegi muy sëñ naa Si ñu ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa alaa mu def ko mu nekk mag te barkeel ko bu baax a baax a baax njàng mi rafet na lool xam naa balaa muy dem dañuy sàkku ci moom mu wàcc rek su ko defee ñu jox ko shahadaam mën ngaa wàcc noonu sëñ Seexuna sëñ naa Si su ko defee ñu woo sëriñ Saaliwu Si mu joxal ñu ko diplôme am sëriñ Saaliwu Si lañ bëgg muy dikk joxal ñu sëñ naa si di doom ci sëñ Ibrahima si ak soxna ma Hawa si dëkk Touba Sam ñuy sàkku ci sëñ Saalihu si mu dikk joxal ñu ko shahaadaam kooku mooy sëñ naa sii bi doon tari léegi ñu di ko jox diplôme am noonu di ñaan yàlla mu barkeel ko bu baax a baax a baax euh, xam naa ñu fàttali ne rek euh, programme bi di conférence bi mi ngi jàll ci tawfiq ci groupe parents yi képp ku ko bëgg seetaan en rek mën nga kaa topp foofu incha allahu taala xam naa kon dañuy jàll ci xale bi ci topp rek Euh, di sëriñ Souleymane Diagne di doom ci sëriñ Ndiouga jaañ ak soxna Bayloo jàlloo dëkk Dakar kër Mbay Fall kon ñu jox sëriñ Amir rek mu euh, laajal ñu ko incha allahu taala bismillah sëriñ Amir xam naa ñi nga xam ni ñoo yore wàllu organisation bi suñ mënoon a fexe ba tax tare bi du am taxaw yaakaar naa mooy li gën waaye mooy gën a sakkanal waxtu wi ñu fexe ba wutal ñu foo xam ne ku tari ba noppi rek fa lay dem ñu fekk ko fa jox ko ay diplômam sargal ko jox ko ay neexalam yaakaar naa ni loola suñ ko mënoon a def du ci yàq dara waaye tibit day nekk lu gën kon ñi nga xam ne ñoo yore wàllu organisation bi nañu ci jàppale ci wàllu googu nga xam ni tari bi daal du am benn taxaw-taxaw ku tari ba ba noppi rek ñu wutal ko barab boo xam ni fa lay nekk ñu fekk ko fa jox ko ay diplôme am ñu yore wàllu organisation bi nañu ci jàppale ci wàllu googu kon suñu ñaareelu donga mi ngi wuyoo ci sëriñ Njuga sëriñ Souleymane Dieng Diagne bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون بسم الله سليم سليمان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 يستطيعون إنهم عن السمع لمعذولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم jërëjëf sëriñ Souleymane ci ci njàng mu rafet boobu yal na la yàlla barkeel te boole la ci ñi nga xam ni ñooy taxaw lislaam ëllëg kon sëriñ Ousmane jërëjëf sëñ Souleymane Diagne ci njàng mu rafet moomu di doom ci sëriñ Njuga Diagne ak soxna bayloo jàlloo dëkk Dakar kër Mbay Fall xam naa dañuy woo dañuy sàkku ci moom mu wàcc rek boo defee Moussa Diallo dikk jox ko diplôme am ñu ngi sàkku ci sëñ Souleymane Diagne su ko defee mu wàcc ci suuf Moussa jàlloo la ñuy bëgg mu dikk joxal ñu ko diplôme am Moussa lañ bëgg mu dikk jox sëñ Souleymane mi doon tari loolu léegi ci njàng alquran mu sell moom mu joxal ñu ko diplôme xam naa kon dañuy woo xale bi ci topp rek mooy Babacar Ndaw di doom ci sëriñ Bamba Ndaw ak soxna Faati Ñang dëkk tuuba xam naa ñu jox sëriñ Amir bu ko defee mu laajal ñu ko moom tamit babakar Ndaw bismillah kon jox ku ñu jox sëriñ Amir mu laaj ko sëriñ babakar yaakaar naa toog nga jekk nga kon yow yaay suñu uh, ñetteelu xale ci xale yi nga xam ni ñoo fi mokkal ren di fukki xale ak yatt di lim boo xam ne lim bu am solo la kon sëriñ sëriñ nan sëriñ Babacar a'uuzu billahi min shaytaani rajiim إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يمسك السماوات أقسموا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كان عاقبة الذين منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يوالي sadaqallahul aziim jërëjëf sëñ Babacar ah sa njàng mi neex na yaakaar naa xol yi tooy na njàng mi rafet na lool xam naa daal suñu borom subhanahu wa rek mbokk yi rek moo jara jaamu suñu boroom rek moo jara jaamu moo jara ragal soo xoolee mbokk mi fi mu tàmbalee ci aaya bi inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula mbokk yi nañu setantal aaya bi bu baax a baax borom bi nee na moom rekk mooy téye asamaan ak suuf ba du jeng asamaan si ni ko yàlla bindee nga xam ni amul dara lu ko téye mbokk yi sunu borom moo ko téye moo ko téye ba du laal suuf kon loola rek doy na ñu ragal suñu boroom subhanahu wa taala waaye doy na rek ci ñu jaamu ko waaw kon sëñ Malick moo koy jox diplôme am sëñ Malick lañ wax moo koy jox diplôme am Ndaw sëñ Malick Ndaw lañ wax moo koy jox diplôme am kon kooku mooy suñu suñu ñetteelu xale waaye borom bi lam ca teg mooy wala in zaalata ñoom ñaar suñu jengoon bëgg a laal suuf in amsakahuma min ahadin min baadi amul kenn ku ko mën a téye ku dul suñu borom subhanahu wa taala kon mbokk yi nañu delluwaat ci borom bi subhanahu wa nañu delluwaat ci santaane borom bi nañu delluwaat ci ndigalu borom bi subhanahu wa taala kon sëriñ Ousmane kooku mooy suñu ñetteelu xale yaakaar naa jàng mi rafet na lool neex na lool kon loola day wane ne rek xale yi kon ñi leen di diglu di leen jàngal tëdduñu rek di nelaw waaye ñu ngi ci def yitte bu baax a baax a baax pour xale yi wattu alquran mokkal ko waaye rafetal njàng mi sëñ Ousmane. jërëjëf sëñ Amir Gaye ci xale boobu nga xam ne moo tari léegi mooy sëñ euh, Babacar Ndaw di doom ci sëriñ Bamba Ndaw ak soxna Faati Ñang dëkk Touba njàng mi macha allah jaar na yoon trop kon xam naa dañuy jàll ci ñeenteelu xale bi rek mooy abu Bakrin Gueye di doom ci sëriñ Alxaaji Gueye ak soxna Fatma la dëkk Dakar Petit Mbaaw kon ñu jox sëñ Amir incha allah mu laajal ñu ko ba tey kon sëñ Abou Bakrin Gueye bismillah sëriñ Abou Bakrin Gueye sëñ Abou Bakrin kon moom mooy suñu ñeenteelu xale ci xale yi nga xam ne wattu noon alquranul karim bismillahi arrahmani arrahim ida waqaati alwaqia bismillah auzu billahi min ashaytani rrajim bismillahi arrahmani arrahim إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم baax na sëriñ abu Aboubacrine Mbaye njàng mi rafet na sëriñ Ousmane kooku mooy suñu abu suñu Aboubacrine Guèye suñu Aboubacrine Guèye mooy suñu ñeenteelu xale sëriñ Ousmane kon ñu jàll ci suñu juróomeelu xale jërëjëf sëñ Amir Guèye sëñ Aboubacrine Guèye njàng mi rafet na lool xam naa dañuy woo imam Siré Dia mu joxal ñu ko diplôme kon sëriñ Aboubacrine Gueye ñu ngi sàkku mu wàcci su ko defee ñu woo sëñ imam Siré Dia mu joxal ñu ko shahadaam kon xam naa dañuy jàll ci xale bi nga xam ne mooy juróomeelu xale ci xale yi wattu alquranul karim ci daara ji ñuy fàttali de daara ji am nañ fukki xale ak ñett yu wattu kon xam naa kii ñuy woo mooy sëñ Mahmouda Ndaw dari di doom ci sëriñ Abdul Ahad ak soxna Faali Jóob dëkk Dakar Parcelles mooy juróomeelu xale bi nga xam ne bokk na ci xale yi nga xam ne wat nañ ci al wat nañ alquran ci daara ci kon ñi ñu koy woo moom sëñ Mahamadou Ndaw mu jox sëriñ Amar mu laajal ñu ko ay ayat min alquran alhakim sëñ Mahamadou Ndaw bismillah waaw kon xale boobu ngeen di gis mooy Serigne Mahmoud Ndaw Serigne Mahmoud Ndaw mooy suñu juróomeelu xale ci xale yi nga xam ne wattu nañ alquranul karim ci ren gi di toll ci fukki xale ak yatt kon kooku mooy Serigne Mahmoud Ndaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي بسم الله سرين محمود أعوذ بالله من الشيطان فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ۖ تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب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 أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم jërëjëf sëriñ Mahmoud Ndaw eh, njàng mi rafet na lool jaar na yoon li ci aju lépp ci wàllu njàngin mel na ni matal nga ko kon yal la yàlla barkeelal sa alquran te def la mag te boole la ci ñi nga xam ni ñooy sàmm diine ji kon sëñ Ousmane kooku mooy suñu juróomeelu xale jërëjëf sëriñ Amir Gaye si njàng mu am solo boobu nga xam ne sëñ Mahmoud Ndaw doon na ko jàng xam naa kon comme ni nga ko waxee rek mooy juróomeelu xale ci xale yi nga xam ne fukki xale lañ ak ñett yu wattu alquranul karim xam naa kon dañuy sàkku ci sëñ Mahmouda Ndaw moom mu wàcc ci suuf rek su ko defee ñu sàkku ci sëriñ Malick si mu dikk joxal ñu ko diplôme sëriñ malik si moom lañuy woo su ko defee mu dikk joxal ñu sëriñ Mahmouda Ndaw diplôme ak cadeau bi tamit dafa mel ne moo ko moom cadeau bi moo ko moom bàyyam moo ko jox kon mu ñëw jëlaale kado bi ak diplôme bi joxaale ñu ko sëñ Mahmoudan kado bi ak diplôme bi kado bi bàyyam moo ko jox kon ñu ngi sàkku ci képp koo xam ne teew nga ci jotaay bi te lu mel ne ab leetar rek taabal jëlee man ma ko faa teg kon xam naa comme niñ ko waxee woon léegi rek lu mat juróomi xale jot na leen jàllale laaj leen ci alquranul karim ñu barkeelu seen wattu waaye am na jotaay bu am solo boo xam ne ñu ngi ko doon wax ci programme bi léegi xale yi nga xam ne ñoo wattu alquran nekk ci daara ji di jàng xam-xam ñoom la ñuy woo su ko defee ñu dikk toog amalal ñu benn jotaay boo xam ne dafay aju ci wàllu wàllu diine su ko defee ñu ngi sàkku ci képp koo xam ne teew nga ci jotaay bi rek nga teewlu xale yi ci kaddu yu am solo yooyu nga xam ne nam nañ koo yëkkati léegi léegi xam naa ñu ngi sàkku ci xale yi su ko defee ñu dem toog ci euh, seeni place ku nekk ñu fas yéene amal jotaay boobu nga xam ne jotaay bu am solo lay doon boo xam ne dafay jëm ci wàllu diine su ko defee képp koo xam ne teew nga ci jotaay bi rek mën nga caa jariñu benn masala boo xam ne mën na laa jariñ bu baax ci sa wàllu ci sa wàllu diine waaw kon su Ousmane noonu nga ko waxee rek noonu la lu am solo la xale yi bëgg a jàllale te muy wàllu xam-xam kon képp koo xam ne yaa ngi ci gataay bi na nga teewlu xale yi bu baax a baax a baax a baax diglu bu baax a baax a baax déema taataan li ñuy wax ngir bu fekkoon ni loo xam ne xamoon nga ko nga fàttaliku ko bu fekkee loo xam ne xamoo ko woon nga jariñu ci te ñaar yooyu benn bu ci ne ci ñoom ñaar am na solo lool kon jullit bi war nay fexe ba heure bu xëyee war nay yokk ci wàllu xam-xam donte benn masala nga xëy xam ko mbokk yi loola lu am solo la te xale yi xam-xam lañ bëgg a jàllale ci jataay bii kon nañ leen teewlu bu baax a baax ubbi nopp yi ubbi xel yi te diglu bu baax xerewlu ngir ñu mën cee jariñoo sallallahu alayhi wa daana wax naan bu fekkee am na benn bis boo xam ne nar naa koo fekke te dolleekuma ma xam-xam bis boobu yàlla na bu ma ko fekke daana wax naan bis boo xam ne nar naa ñëw te naruma cee dolleeku xam-xam boobu yàlla bu ma ko fekke kon mbokk lii bokk na ci li nga xam ni day tax ñu jariñu kon yaakaar naa euh, noppi nañ yaakaar na kon kàddu gaa bismillah suñu Usmaan bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن mbokk jullit yi gannaaw nuyoo bi ak ziyaara bi ñu ngi jagleel am nuyoo akub ziyaara yéen way jur yi dëkkandoo yi way sopp alquraan yi ñu ngi leen wax dal leen ak jàmm ci jotaay bu tedd bii di jotaay alquraan di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala faj aajo yi képp ku fi teew wala ku amoon yéene ji waaye mbokk yi jotaay bii jotaay la boo xam ne baaxoo woon nañ di ko amal saa yu bis bu mel nii ñëwee te ñu koy amal ñooñu ñii nga xam ne yàlla dogal na jànge nañ ci daara ji alquran ba mokkal waaye continuer di fi jàngee xam-xamu diine ak français ak araab kon loolu day wane ne daara ji am na yeneen jàng yu bokkut ak alquran te ci jotaay bii ñu nar a ak suñu mbokk yi toog danañ ci gis ay laaj yoo xam ne yii ci araab lay doon yii français lay doon waaye bu mu ci mën a doon danañ ci toftal ay laaj yoo xam ne da leeral ci wolof kon ñi ngi sàkk ci ñëpp ñu teewlu ko bu baax ndax dana leen jariñ ci wàllum diine ak ci seen àdduna jotaay bi nag maa ngi ko nar a séq ci wàllu laaj yi ak sama mbokk mu Mouhamed Ndaw waaye bala ñoo dugg ci laaj yi dañ koy jox moom mu nuyoo ubbi ci français ayoo Mouhamed Ndaw vous avez la parole Bonjour. Chers élèves, chers parents et chers invités, c'est avec une immense fierté et un profond respect que de prendre la parole au nom de mes camarades de classe devant vous aujourd'hui. À l'occasion de cette journée dédiée aux résistants du Coran, nous sommes réunis ici pour célébrer la beauté la sagesse est la profondeur de ce texte secret. À tous les apprenants de Taïsir Assir, consacrez temps et effort à l'apprentissage et à la résistance du Coran et du français. Je tiens à vous adresser mes plus chaleureuses félicitations. Votre engagement et votre dévouement sont dignes d'admiration. et votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre attachement à cette noble traditionnelle. Le Coran, en tant que parole divine révélée au prophète Mohammed, que la paix soit avec lui, est bien plus simple qu'un livre, est une source de, de guidance, de lumière et d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. en récitant le Coran, chaque mot et chaque verset que nous prononcions avec soi et devenons rançon avec la puissance et la grâce de la parole de Dieu. À travers ces récitations aujourd'hui, sur les enseignements de l'éducation religieuse, une riche expérience nous inspire et nous guide tout au long de notre vie. Nous voudrions également exprimer notre gratitude envers nos parents et les enseignants avec Oustaz Serigne et ses collaborateurs, sans oublier le directeur de l'école, M. Diallo, M. Dem et Mme Ndiaye, qui tout font beaucoup de sacrifices pour notre succès. Votre soutien indéfectible est essentiel pour nous aider à développe l'amour du travail et la compréhension du savoir. À conclusion, nous sollicitons toujours vous. merci Mohamed Ndaw kon mbokk yi suñu laaj bu njëkk mooy la mooy diine lan mooy diine lislaam ak i xaajam day mel ne baaxoo woon nañ di ubbee jotaay bi ci laaj bu mel nii waaye bëgg nañ ab tontu ci arab balañ koo leeral ci wolof laaj bi mooy ma huwa diinul islaam wa ma hiya aqsaamuhu bi tafsil bismillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa shukran ala hada sual alqayim awalan fala budda an nactarifa an addiin alladi ixtaarahu llahu libaadihi ورضيه لهم هو الإسلام كما قال الله في محكم تنزيله إن الدين عند الله الإسلام ويجمع ثلاثة أمور أولها الإسلام ثانيها الإيمان ثالثها الإحسان ولكل واحد من هذه الثلاثة ميزة عن سواه مثلا قد يعرف الإسلام بأنه الانقياد الظاهري لله وحده وهو مبني على الأركان الخمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أداء الصلوات الخمس صوم رمضان إيتاء الزكاة حج بيت الله الحرام بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس shahadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ila axiri alxadis alimaanu aydan qad yurafu bi annahu tasdiqu aljazim bikulli ma jaa bihi nnabiyu wa yakunu alamalu bilarkaani shurtan fi sixatihi wa dalilan alayhi wa arkaanuhu sittatun kama afaadahu xadis umar bni alxataab عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أما الإحسان فهو قيام الروح بمشاهدة الملك العلام يعني الإخلاص والدليل قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم قائلا فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أيها الإخوة فهذا وقفة سريعة عن شرح دين الإسلام وأقسامه فلكم جزيل الشكر والتقدير على متقابكم لنا wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu walaka yaa Mohamed Ndaw tontu bi leen na macha allah kon mbokk yi day mel ne tudd na ñetti xaaju diine ji ci tontom bi xaaj bu ci nekk nag dañuy bàyyi am ku ko leeral ci wolof bi ci jiitu mooy lan mooy islaam maanaam bu ñu nee lislaam ana lan si jublu bismillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf mbokk mi ci laaj bi laaj la boo xam ne day leeral rekk li mbokk mi doon wax ci arab mbokk yi diina ñetti xaaj moo ko composé benn bi mooy imaan beneen bi mooy islaam beneen bi mooy ihsaan muy laaj boo xam ne it ba tey day mel ne baaxoo nañ di ko laaj ci jotaay yi ñu amal ci bis bu mel nii mbokk yi bu ñuy leeral lan mooy lislaam danaan mooy jullit bi wommatu tënk ci lépp loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf kaa andi maanaam muy def ay ndigalam waaye di bàyyi ay tereem mbokk yi lislaam dafa am juróomi mbir yu ko tënk mooy yu ñu tuddee ay ponk te it jullit bu nekk dafa war mu boole juróom yépp gëm ko ci xolam waaye di ko jëfe bi ci njëkk ci juróom yooyu mooy gëm ne benn buur rekk moo am te muy yàlla sunu boroom gëm ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla la maanaam yàlla ko yónni lii mooy benn ponk bi ñaareel bi mooy di julli julli ñetteel bi mooy di weer wooru koor ñeenteel bi mooy di aji màkka bu la waree juróomeel bi moo di joxe azaka bu charte yi dajee ci yow mbokk juróom yi ñu wax ñi ngi ko teg ci xadis boo xam ne Omar ibn al-Khattab moo ko nettali xadis baa ngi wax ne buniyal islaam ala xamsin shahaadati an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaati wa itaai zaka wa xajjul bayti wa sawm ramadan wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf Moustapha Lay ki tontu ba am solo bi yal na yàlla yokku xam bi barkeel ko kon bi ki topp mooy ana lan mooy imaan bu ñu waxee ak ngëm lan lañ ci jublu bismillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu comme ni ko mbokk mi leeralee ci làkku araab doon ci leeral xaaji diine yi tam wax la moom moo islaam imaan ak ihsaan waaye laaj bi mooy la mooy imaan imaan mi ngi ko doon leeral ci tënk dañ naan mooy julli di dëggal lépp laa xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ñu ko ah, indi nu bàyyi koo fa yàlla waaye ci teqale daf am juróom benn ponk yooyu gëm juróom ba sa jiitu mooy na gëm yàlla ñaareel ba mooy na gëm malaayka yi ñetteel ba mooy na gëm téere asamaan yi ñeenteel ba mooy na gëm ay yenenteem juróomeel ba mooy na gëm bis juróom benneel ba mooy na gëm dogal moo xam dogal yiw la dogal safaan lu mu ci mën a door rek na gëm ko juróom benn ponk yi may ponk gëm yàlla kon ku nekk war na kaa xam waaye mu gëm ko ci xolam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Serigne Mohamed Mbaye yal na yàlla barkeel xam-xam bi kon seexu naa day mel ne ñetteelu xaaju moo ñu dese di bu mujj bi di lan mooy ixsaan maanaam bu ñu nee ixsaan lan lañ ci jublu bismillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi day mel ne laaj bi mooy ñetteelu xaaj ci xaaju diina yi te mbokk mi leeral ko léegi ci lakku arab loolu mooy ixsaan ixsaan nag ci tënk dañu wax naan mooy jullit bi meloo lépp luy makaarimal axlaaq te mooy jikko yi tedd nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu koo jàngal ci alquran ak ci hadis waaye mbokk yi ixsaan mooy sellal say wax ak say jëf Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bim ñuy jàngal ixsaan dane mooy nga jaamu yàlla ba mel ne yaa gis boo ko gisul it xamal ne moom mi ngi lay gis loolu nag la mi tekki rek mooy looy def wal nga koy wax nga bàyyi xel sa borom bu baax ci lu nëbb ak lu feeñ moo tax mbokk yi sellal lu jikko joo xam ne day mottali rek maanaam bul jàpp ne yow lay neex rek nga def ko déedéet waaye dafa bokk ci cislaayu lislaam jullit bi di sellal ay waxam ak i jëfam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Abdoulaye Ndaw ci tontu bu solo bi yàlla yàlla yokk xam-xam bi barkeel ko kon ñu continuer laaj rek suñu beneen laaj mooy nga xam ne mbokk yu bëri danañ soxla teqale gi te mooy la moo teqale aj ak umra benn bu ci nekk mu leeral ko waaye wax la mooy atteem incha allahu taala leeral laa la sax li ki nekk ci ay ngëneel bismillah assalaamu aleykum wa wa barakaatu lan moo teqale aj ak umra ajja da naan farata ci bépp jullit bu am xel nekk muskallaf nekk gor maanaam nekku jaam bi ñu moom su ko manee su booba farata ci moom benn yoon ci dundam waaye mbokk yi aj mooy juróomeelu ponk ci ponk lislaam aj moom nag dafa am ay ponk walla farat bi ci njëkk mooy armal ñaareel bi mooy tawaaf ñetteel mooy dox diggante safa ak marwa ñeenteel mooy taxaw taxawaayu arafa mbokk yi umra nag moom atteem sunna la bi ñuy fedd li ñuy wax sunna muakkada benn yoon ci dundu jullit bi moom mi dagan na def ko ci at mi yépp ba mu des bis yoo xam ne bis aj la waaye mbokk yi umra dana am armal ak tawaaf ak dox diggante safa ak marwa mbokk yi lii moo teqale aj ak umra kon amul taxawaay arafa mbokk yi lii moo teqale diggante aj ak umra bu fekkee aj moom farata la nekk juróomeelu ponk ci ponk lislaam umra nag sunna la mbokk yi umra am nay ngëneel bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne diggante umra ba umrawaat day far mboolem li jaam bi def ci ay bàkkaar wala ci ay ñaawteef aj moom ay nganeelam yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne aj gu nangu fayam aljana la al humratu ila al humrati kafarat lima baynahuma wal ajjul mabruur laysa lahu jazaun illa janna wassalaamu aleykum wa rahmatullahi déplacé wu tuuti rek oto bu gaaree ci ginnaaw am na ko bëgg a génn foofu mu déplacé tuuti bu ko defee moom mën a jàll bismillah jërëjëf Serigne Fadilou Bamba Ndaw ci tontu bu am solo bi yal na yàlla barkeel xam-xam bi kon mbokk yi ñu teg ci it laaj bu ko njur laaj bi mooy lam moo teqale azaka ak azaka yi mbuurum koor di li ñuy génne ci bisu korite ana lan moo leen teqale bismillah asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu lan moo teqale lu ñu wax azaka te mooy lu nit ki di génnee ci alam bu fekke matal na nisaab waaye lan moo ko teqaleeg zakatul fitri te mooy azakay mbuurum koor buñ ne adaka rek mooy lu nit di génnee ci alalam bu fekkee matal na nisaab waaye lan moo ko teqaleeg zakatul fitri te mooy adakay mbuurum koor koor yonent bi sallallahu alayhi lan moo ko teqaleeg zakatul fitri te mooy adakay mbuurum koor ada kay mbuurum koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo teqale li ñuy wax azaka te mooy nit ki di génnee ci alalam bu fekkee matal nisaab waaye lan moo ko teqaleeg zakatul fitri te mooy azakay mbuurum koor azakay mbuurum koor dañ koy génnee ci bu matee li ñuy nisaab ci bu ma dee li ñu wax nisaab te nisaab mooy kem bi nga xam ne moom la lislaam nattale ne ku ko am daa war a joxe azaka ñeenteelu chart bi nag mooy alal jooju bu nekkul luñ bay na mat at ci moom luñ bay moom ni ko alquran waxee woon rek wa aatu xaqahu yawma xisaadi te bañ ko góobee ba ngattale ko ba pare rek lañ ji joxe adaka mbokk yi bu fekkee adakay mbuurum koor nag moom lañu tuddee léeg-léeg adakay jëmm yi wala adakay bopp yi ndax dañ koy joxeel képp kuy jullit nekk gor wala jaam góor wala jigéen mag wala ndaw dajay génnee wu tolloog soa ci réew mu nekk la ëpp lu muy dundee kon bu fekkee Sénégal la ceeb lay door asakay mbuurum koor nag ab atteem faaga boo xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko farataal boroom xam-xam yi di wax ba tey ne génnee ko dafay laabal ki doon woor daf koy ketal ci bépp njumte wala bépp caaxaan boo xam ne defoon na ko ci weeru koor wi bokk na ci xikma yi it ñépp yam ci bisub ayit bi ndax buñ ko jagleelee ñi nga xam ne dañoo ñàkk ñoomit it danañ yëg seen bopp ci bis boobu nga xam ne bisub teraanga la yi lii moo teqale diggante adaka ak li ñu wax adakay yu koor adakay mbuurum koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko faataal waaye day war bépp jullit comme niñ ko waxee léegi bee nag moom faagala mooy ñeenteelu ponk ci ponki lislaam ba pare it wax nañ charte yi nga xam ne mooy dajee mu dog laa war ñu war kaa génnee ci wurus wala xaalis waa lépp bu taxaw seen taxawaay wala ci ay mbay wala ci jur bu nee jur nag mooy nag ak géléem xar kon mbokk yi lii moo teqale diggante azaka ak azakay mbuurum koor wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. rahmatullahi xam naa borom oto bi ba léegi dafa mel ne ñëwagut numéro oto bi mooy AA 199 JM ki ko yor mu dimbale ko dafa bëgg a génn mu àndale tuuti otoom rek bu ko defee mu mën jàll ndax ki dem léegi nee na du otoom mi ngi taxaw di ko xaar ba léegi mu jàppale ko ci oto bi mi ngi ci ginnaaw baas bi AA 199 JM. jërëjëf Mor ki tontu bu am solo bi yàlla yàlla yokk xam-xam bi barkeel ko mbokk yi ay it am nay xeet maanaam ay façon. bëggoon nañ kuy leeral lan mooy xeet aj yi am ak ban moo ci gën incha allahu taala bismillah asalaamu aleykum wa rahmatullahi waaw aj am nay façon façon yi sax ñett la am na lu ñuy tuddee ifraad am na lu ñuy tuddee xiraan am na lu ñuy tuddee tamattu ifraad mooy jullit bi dem màkka ci weeru at yi ngir ak kese boolewuk ak lenn xiraan nag mooy boole aj ak umra ci benn armal maanaam bi mu demee ngir aj ci benn tukki boobu ci la armalaalee ngir aj ak umra yépp yoolu mooy xiraan tamattu nag mooy koo xam ne dafa armal ngir umra ci weeru at yi bi mu palee ngir aj loolu lañuy tuddee tamaton bu ci gën nag ci mazhabu Malik mooy al ifraad mat naa leeral it ñu ne koo xam ne dafa def tamaton wala mu def xiraan su boobaa dana joxe li wax radiyu maanaam day rendi gàtt bu ko mënul nag mu daldi woor ñetti fan ci màkka mu ñibbisee mu daldi woor juróom ñaari fan nga xam ne fukki fan lay doon loolu la suñu boroom wax ci alquran fa man tamatta bil umrati ila alxajj fa mastaysara min alhadi ila axiri aya wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa bi yal na yàlla barkeel xam-xam bi suñu laay bu ci topp mooy ak tey fay weeru koor laaj boo xam ne ñu bëree bëri dañ ciy sàkku ay leeral maanaam naka la ñuy ak kañ la fay ak yu mel noonu incha allah bismillah asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf mbokk mi ci laaj bu am solo bi te mooy nan lañuy ñuy koor ak kañ lañ ko war a fay ak it buñ ko yéexee fay ba beneen weeru koor dugg si nan la ñuy def mbokk yi lu ñuy njëkk a ci laaj boobu mooy koo xam ne baru koor def kaawar moo xam dafa amoon ngànta bu daggoon ab kooram wala sax amul woon ngànta waaye dafa dogoon te tey ko teg ci kooku sax dafa war a kafaar waaye mbokk yi fay gi nag nu muy demee mooy na fexe ba limbam war a fay mat ndax suñu borom moo ne fa iddatu min ayaamin oxar maanaam fan yi nga xam ne faat na ko ci koor gi na fay lu toll noonu bu fekkoon na juróomi bis la tamit na fay lu juróomi bis ñaareelu àtte bi mooy sopp nañ ko yor boru koor mu gaaw kaa fay ñetteel bi mooy bu fekkee ne fayul ba beneen weeru koor dugg si su boobaa dañ naan ko dangay woor weeru koor yi ba mu jeex bu jeexee nga doog a fay weeru koor gu njëkk ga wala bis yam ca yoroon waaye mbokk yi buy fay loolu day def li ñuy wax fidya fidya mooy day joxe saa yi dog jotee maanaam dafay sax am miskin daf koy jox li tolloog mudd ci pepp wala ci ceeb loo xam ne ëpp na liibar waaye mën naa yes kilo saa bu dogee rek loolu lay joxe chart bi waral mu joxe fidya nag mooy bu fekkee ne laata weeru koor gi ni ñëw mënoon na kaa fay te fayu ko kon ngay gis na moom aji sàggan la su boobaa day joxe fidya waaye bu fekkee ne fayut woon ko ngir ne dafa nekkoon ci ay ngànta wala boog dafa nekkoon ci ay jafe-jafe su boobaa du joxe fidya jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa basalu si ci tontu bu am solo bi yàlla na yàlla yokk xam-xam bi barkeel ko mbokk yi suñu beneen laaj mooy ku nekk xam ne ne fii ak ay semaines yu néew incha allah dinañ yegg ci bisub tabaski moo tax suñu laaj bi ci topp dañ koy jëmee ci wàll googu te mooy la mooy tabaski ak kan la war waaye li ñu wax tabaski mu maanaam gàtt bi moom it lan mooy ay chartam bismillah asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon xam naa bala nga balaa xale bi laaj boobu di jàll ñu euh, xam le ne kon ñu continuer mu jàll ba noppi rek xam naa imaam Cheikh Awa Balla Gueye dafa mel ne day waaj a tàggatoo euh, dañoo bëggoon a euh, xam leen rek teew na ci jotaay bi su fekkee mën naa xaar xale yi tu pare tuuti rek xale boobu di ki tontu su ko defee bu amee kàddu yu tuur yu gàtt rek balaa muy yewee ko incha allah mu yëkkati ko ci bismillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki tabaski buñ ko waxee nag lan ca jublu mooy lan ciy lewetal di gàtt bi moom la arab di wax al udxiya ateem sunna bu am doole la sunnatul muakkada xikma bi tax yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala yoonal ko ci jullit ñi mooy ngir ñu sant ko ci ay xéewalam yu bari waaye ngir ki nga xam ne amul maanaam moom it mu mën a yëg boppam ci bisum mbégte boobu noonu mu feetu ko comme ñépp tabaski ki mu war mbokk yi mooy ki ko man ndax ñu bari dañoo yaakaar ne boo nekkee muskallaf rekk daf lay war déedéet boo nekkee jullit ba pare nekk gor ba pare aji woo ndax boo ajee duñ la sant nga tabaski waaye li ñuy wax xaj yu ngay joxe gannaaw ñetti charte yooyu nag bu mu cher ci moom ba bu ko defee ak lor topp ca charte yi saay dajee si nit ki kooku war naa tabaski mbokk yi yi tax tabaskeem baax bu ci njëkk mooy mu yéene ndax tabaski jaamu yàlla la te innamal amalu binniyaat ñaareelu charte bi mooy li muy tabaskee na nekk giléem walla nag wala xar waaye xar moo ca gën ñetteelu charte bi nag mooy li muy tabaskee di xar bi na mucc si ayib maanaam bu mu sikk wokk am na xadis boo xam ne albarra ibnu azib moo ko nettali mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñeenti gàtta ngi yoo xam ne munu ñoo tabaski kon mbokk yi ñu bàyyi xel bu baax lii may bëgg a wax ku ko gis ci gàttam na xam ne gàtt moomu mënta tabaski bu si njëkk mooy gàtt boo xam ne dafa pat maanaam bët bi du gis te fës na boo ko xoolee rek xam ko ñaareel bi mooy gàtt boo xam ne dafa feebar boo ko xoolee xam ne lii feebar na ñetteel bi mooy gàtt buy soox ba soox bi fës ñeenteel bi mooy gàtt boo xam ne dafa damm ba damm bi xëy na saafara ko lu jafe lay doon mbokk yi bokk na charte yi tabaski nga tabaski ci bis bi am na boroom xam-xam yu ne ñaari fan yu nekk ci ginnaaw mën nañ see tabaski charte bi mujj bi nag mooy na lewetal gàtt bi gannaaw bañ jullee iid bi ba pare waaye bu ko defee avant imam di lewetal wala njëkk ñuy julli kooku su boobaa amul tabaski waaye yàpp kese la am wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Serigne Mohamed Cissé tontu bi leer na lool macha allah yal na yàlla barkeel xam-xam bi mbokk yi suñu beneen laaj bu ci topp mooy yan ñooy atte sariyan yi benn bu ci nekk nag bu aajoo teqale ak leeral nga defale ko ci insha allah bismillah atte sharia yi juróom la ne atte sharia mooy kàddu suñu borom bi nga xam ne mooy atte jëfi jaami day mel na kon jullit bu nekk war na kaa mën xam ndax bariwul ba buñ ne lii farata la mu xam lan mooy farata maanaam lan lañ ci namm naka noonu ya des yépp bu ko ràññee bu baax dana ko dimbali ci mu xam waaye xàmmee lim war a def ak lim warta def atte shari'a yi ñu wax ne juróom la nag ba ca jiitu mooy farata farata nag mooy loo xam ne jullit bu bu ko defee da cay am tiyaaba waaye bu ko bàyyee da cay am bàkkaar boroom xam-xam yi nag séddale nañ ko ci ñaari xaaj fardu aynin ak fardu kifaaya fardu aynin nag mooy loo xam ne dafa war ci jëmmi mukallaf bi mu defal ko boppam kenn mënu ko kaa defal ñaareel bi te muy fardu kifaaya nag mooy loo xam ne jullit yépp la maase war waaye nag bu ko ñenn ñi taxawee maanaam bu ko ñenn ñi defee day wàcc ca sa des ñépp mën nañ ci joxe misaal lu mel ne jullee ak yu mel noonu ñaareelu atte sharia bi mooy sunna sunna nag mooy loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko def lu bari it ba pare daan na ca soññee lu bari ba pare amul dara luy tegtale ne dafa war saa yi jullit bi dafee nag da cee am tiyaawa waaye bu ko bàyyee nag kenn du ko ci bindal bàkkaar sunna boobu it boroom xam-xam yi nag séddale nañ ko ci ñaari sunna sunna bi am doole ak sunna bi amul doole sunnatun mu akkadatun wa sunnatun xayru mu akkadatin sunna bi am doole nag mooy sunna boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax na def na ko ba pare daan na ca soññee lu bari it sunna bi amul doole nag mooy sunna boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg daan ko def léeg-léeg daan ko def léeg-léeg daan ko def ba yit it daan ci soññee lu bari moo tax lenn ci boroom xam-xam yi ñu koy tuddee mustahab wala manduub wala fadila ñetteel bi mooy lu dagan lu dagan nag mooy loo xam ne ñaar yëpp a yam ci jullit bi bu ko defee baax na bu ko bàyyee it baax na ñeenteel bi mooy lu ñu sib lu ñu sib mooy loo xam ne lislaam daf laa daf laa digal nga bàyyi ko ba pare forcé la ci soo ko defee ngir dañ kaa sib dañ ci am tiyaaba waaye boo ko defee doo ci am bàkkaar juróomeelu atte sharia bi te mooy bu mujj bi mooy lu xaraam lu xaraam nag mooy loo xam ne lislaam daf laa digal digal lu forcé si nga bàyyi soo ko defee dañ ci am bàkkaar waaye boo ko bàyyee ngir dañ kaa tere dañ ci am tiyaaba kon mbokk yi lii mooy juróomi atte sharia yi jullit bu nekk war na caa taxaw ngir xam ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh jërëjëf Cheikhouna mbay ki tontu bu am solo bi yàlla na yàlla yokk xam-xam bi barkeel ko mbokk yi kon dañuy def pause ngir mayaat suñu mbokk yi toog nga xam ne ñooy borom bis bi ñu may leen ñu tare ñu alquran buñ ci paree ñu continuer laaj yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ngeen jëf sëriñ Cheikhouna Ndiaye ak sëriñ Mouhamad Ndaw mi nga xam ne ñoo doon. diriger jotaay bi di laaj-laaj yu am solo yaakaar naa képp ku teew ci jotaay bi waleen teew bu baax a baax da nga xam ne xale yi liñ doon wax ci diine maîtriser nañ ko bu baax a baax te képp koo xam ne xamoon nga ko ko gën nga gën nga cee muraajaa bu baax waaye képp ku ko ku xamul woon tamit mën nga caa jariñu bu baax a baax a baax boo ko teewloo